ñoo ngi fii Médina ndax ñoom jaxle moo tax ñu woo ba ñu ñëw seet si leen ndax kër gi ngeen gis nii ma taxaw porte bii famille entière le kaw ak souf bo tourner amna un manam ay ménage yu la ci problème moy dafa am ko ñu déclaré fi dafa coronavirus néna ñom ñep ñu défaral un test ñu négatif yaay ki ñu déclarer coronavirus négatif sauf ñaar ñaar ñi un kenn ki dafa am ay am ans qui yi négatif mom positif cousinam bi nga xam ni war na am 5 tamit ñu déclaré ko positif waaye waa kër gi nee na li leen jaaxal bi ñu leen déclaré positif jël siw ñu leen parce que nee na hôpital yi amuñu place ba pare ñoom ñooñu ñu déclaré positif gisuñu benn signe si ñoom loolu nag indi na coow ci biir kër gi ndax coow li bëri na dañoo am amuñu politique la lan moo nekk ci ginnaaw quarantaine bi ñu leen sant nag parce que nee leen leen ñaar ñooñu ñu mettre leen en quarantaine en attendant ñoom nee leen ñooñu nekk mettre ñu leen en quarantaine ndax gisuñu ci ñoom benn signe boo xam ne rek war na nekk corona ñu dugg si biir ñu expliquer leen lan lañ dund. man Fatou laa tudd Medina laa dëkk. dañ fay ñëw lënd bi passé euh, sama benn euh, doom papa mu lañ ñëw seet ñu jël si ko yóbbu ko dafa corona fekk xale bi dafa demoon ànd ak yaay hôpital ñu daf am taab ñu yegg ñu ne moom am corona.

Euh, test yi dañ dafa ben dañ jël wëteen def ko ci ben genre euh, ki bu xonko genre ki kii daal waaw duggal suñu bakkan ak suñu gémmiñ daal ko def si benn kii tëj ko bi loolu amee def sama doom sama doom ñu woo ko démb depuis lundi lañ da test yoy lundi ñu wo sama doom bi am cheikh ñu ne ko yow da nga am corona bi yow ak bébé Sali. demb lañ ko wo demb lañ ko wo waaw. moy demb moy moy moy kër di dañ ko wo ni ko da nga am corona bi yàgg bébé Sali isolé wu leen isolé wu leen ngeen jël tak seen masque yi ñu toog di leen xaar dinañ fa ñëw. ñu toog di leen xaar boobu léegi ñëwuñu yaa ngi may dégg te bébé say asma la am asma da koy daanal bu ko daanal rek defal masque mais depuis ndox nawet bi di waaye ñëw la ko asma daan mais boobu léegi naa asma daan la ko temps yi passé nag sama doom bu jigéen bi nga xamante ne la ñuy wax dafa corona dafa sibiru woon ba mu sibiru mu dem hôpital yi bind ko ay garab da ko defal prévision yore ñu xaar deful prévision yi mais dafa toog naan garabam yi far yàlla def mu tane ba tey ji moo doon fóot yére yi nekkoon ci kër gi yëpp moo doon fóot tey waaw ñoom bu ñu waxee xaar lañ ba dem toog naa di leen xaar ba 5 heures du matin gisuma kenn gisuma kenn léegi léegi ñiñ ne dañoo corona. waaw ñooñu euh, ñaata at ñaata at na la. Euh, bay am na vingt ans ku ndaw kii ñu am na six ans. ñoom ñu ne ñoo corona. ñoom ñaar ñoo corona léegi léegi ki nga corona wul mais doom bi dañ dafa corona. doom bi dafa ba léegi. léegi seen doom yi ñu euh, gis nga feebar si ñoom. ndax sama doom bi ñu wax dafa am corona tey mu xëyee moo doon fa yëre ay seexam ndax ay seex la ko yàlla man ba mu xëy moo doon fóot yére yëpp fóot na yére yëpp ba mu set wecc wax dëgg yàlla ba weer leen ba woowaat na leen sax ñu ne ko ñu woo ñu woowaa sami mais sama doom wax dëgg yàlla gis ma benn signe si ñoom sëqatuñu defuñu dara même démb dañoo nelaw ba doy ma damaa toog di leen xool mais dañu doon nelaw ba 5 a tëdd euh, ñun ñu ngi fii si biir gis nañ ni que ñoom isolé ñu ñu ngi foo ak xale yi waaw ñëpp ñu ngi jaxasoo ñoo ngi jaxasoo loolu moom dëgg la ñun ñoo bokk lépp lépp ñoo koy defandoo dañuy nekk ci biir néeg neuf groupe ñu ñëpp ci biir néeg bi ñooy toogandoñ def ñëpp waaw parce que gis ñu signe si ñoom xam nga booy isolé tamit day fekk nga gis signe parce que da ngay sëqat baa sa baat bi di metti baa ta nooy bi du day mën a lu fat yaa ngi dégg mais signe yooyu ñuy wax si ñoom man gisuma ko si ñoom ndax yàgg naa ki nga gën a mën daw te mu am asthme tey bu amoon tey feebar boobu du taxaw du taxaw ko ëpp bi rawal nañ ko mais mu ngi faw mu ngi bëre mu ngi fecc kon kooku dana dalu ko loolu moo tax ki njëkk am ban hôpital la nekk. ki njëkk am yaa mu ngi liggéey polyclinique day fabare foofu. d'accord polyclinique ko yóbboon mais hôpital bu nekk man léegi ñu ñëw defal leen test xaw ma fa lañ nekk mais auto daal lañu def groupe ay jigéen la ak góor. góor la ñaari jigéen la ah. seen résultat yéen. ñu suñu résultat ak yu séeréer yi ci ginnaaw. ginnaaw ñoom nee nañu kenn amu ci corona te yi boobu fa la daan fowee fa la def fii da daan foo fii sama biir kër sama biir ne gaa dafa daan ñëw di foog man ndax man mi sama xarit la te sama doom la encore ndax sama papa moo ko jur waaw mais à part ça ñun gis ñu signe si ñun dëgg yàlla feebar gis ñu ko suñu bopp. boobu tey ñan ngeen doon woo. ñooñu ñooñu ñooñu waaw waaw ñoom ñooñu ñu ñu woowoon ni sama doom bi dafa am corona bi ak sama doom bu set bu jigéen bi ñoo ngi leen di woo ñu ne waaw dinañ ñëw léegi nii ba sama doom woowaatee leen léegi dañ ne dañu woo waa set loolu la ñu wax ndax démb dañ na foofu dafa fees amuñu place nañu isolé wu loolu la ñu wax boobu ba léegi nag ñun dégguñu leen gisuñu leen tam dem ba 5 dem du matin laay doog a tëdd gisuma leen dégguma leen. mais mais mais yéen bi ñu leen déclaré lan ngeen di def pour pour mën a protéger seen bopp. dañuy raxas suñuy loxo dañuy raxas suñuy loxo ak saabu wax dëgg yàlla ba mu set def ci eau de javel ba mu set. noonu la ñuy def mais mais leen li leen wax ni que dañoo corona dem ba si biir loolu am yéen ñëpp ngeen am. waaw parce que parce que bu nekkoon ñoom dañu gis signe si ñoom. dañ leen mën a daw dañ mën a isolé mais signe boo gis sëqatuñu sojuñu daa dalu leen kon ñooñu pour daw leen problème lay doon problème bi loolu la parce que yaay itam du daw doomam man mënu maa daw samay doom ñoom laa am tey bu ñu feebar ma damay feebar te bu nekkoon damaa gis signe boobu si ñoom may ba jur leen du ma toog di seetaan kon woote naa urgence bi yàgg ñu jësi leen waaye comme que ñoom ñoon ba dafañ test ni ñoom ñaar ñoo am te boobu léegi maa ngi xool te boobu léegi maa ngi xool gisuma si ñoom benn signe ñoo ngi liggéey seen liggéey ñoo ngi def leen war kon man awma dara loo xamante ne war naa ci mën a wax aw ma si dara loo xam war naa ci mën a wax man Sali Sarr laa tudd man ñëpp ñu ma xam ci Sali Balla Gaye du dëgg mais comme copie për bi moom gis nga ni dafa populaire du dëgg te kër gi nit bu nek fi lay dugg ñepp fi fiy dugg ñëpp a fiy waxtaan ñëpp yaa ngi dégg eh, kon nak tay suñ ñëwé ben xalé bu nek ci ginnaw bo xamé muy mi yaama 12 ans la am dañu né dafa feebar mu soj ci ginnaw la dëkk fi ñu né dafa daa am covid 19 biñu né dafa am covid 19 yaaji nak nag bañ ñu ne yaay dina defal test comme que yow moom yaaji dafa defal ko test defal ko moom test ñu né xalé bi fa positif am covid 19 dafa positif yaaji né fa négatif yaay na moom mënu nangu loolu man tamit ne ko man tamit di xel nangu ko parce ku nekk ak sa xel li mu nangu léegi nañ jël kër gi yëpp kon ak fépp fu mu jaaroon di foo ak ñoom ak xale yi mu doon yëpp ñu jël leen ak ay xaritam ñu jël ñëpp jël pëlafuta yi si ginnaaw lu dëgg jël ñëpp bi leen jëlee man d'accord naa leen nit ki boo ko nee dafa covid 19 dafa corona maanaam am na ay signes yoo xam ne war na ko mën a def non mais koo xam ne da nga dafa corona amul benn signe bu muy def ci signe yi nga ne moom lay joxe da ngay sëqat sa gorge day métti ah. ba pare da ngay tisooli foo toll sa yaram di tàng mais ki nga koy jiiñ kooku dara jotu ko ci du dëgg man na xaw ma xaw ma politique la xaw ma dafa am lu làqu ci ginnaaw man xaw ma léegi xale bi ñu koy jiiñ yow tey yaa ngi yor ñaari seex di nampal ay doom léegi seex yi ngay nampal yow nga ne kii dafa covid 19 moom mu génn positif ay seexam négatif sama turandoo tamit ñu ne dafa positif yaayam négatif te ñooy bokk benn mbàjj mais man tamit may laaj loolu lan la mën a nekkee parce que tamit man su ma jaaxalul jaaxal na askan bi parce que lii liñ koy coow dafa bari ci réew mi da ngay soo xam ne dafay naan dañ ko ne dafa positif mu dem génn comme ni ñuy wax tësu keroog bi rek mooy euh, baana baana bi positif woon commerçante bi jaaykatu jën bi ñu dem yóbbu ko mu ne dafa positif ne ko da ngay jaar jaar yëpp mu jaar foofu yëpp woowaat leen biñu demee ñu defaraat leen ñëpp ñu négatif dafa am loo xamante ne yàq deru nit ki la ndax yàqu na deru nit ki parce que nit ki soo ne da nga positif rek dëkk bi yëpp dañ koy daw te loolu warut man man man xool nañ ma xool ñëpp xool sama doom du dëgg kon suñ ko nee dafa positif rek day ñaawal xel yëpp parce que duñu ne moom moo positif de dañuy naan kër gi yëpp positif képp si kër gi dañ lay daw du dëgg te amaana xamuñu nu mu demee. loolu laa lay wax nii parce que dama yaakaar ne man ah ki soo ko nee soo ko defaree euh, test ba pare rek bu positif kooku da war a jël yóbbu du dëgg li nga war a njëkk a def kii positif na comme ni ñu ko daan defee ñoom dañ daan jékki-jékki jël seen oto gaare ñëw jël seen la yóbbu mais nit ki doo ko ne dafa positif ba pare ko ci bii kër gi naan ko amaguñu place mais léegi li risque la. yéen yéen ñëpp seen test génn na. am na ñu génn am ñu génn léewul du dëgg. non parce que ñoom dañoo ne dañuy fa positif après ñoom kii woowaat ko di ko laaj mu ne ko dinañ la jël si ma ko bu fekkente ne dafa positif normalement war nañ ko mën a jël si. parce que bàyyi ko ci biir nit ñi tamit nga xam yow kii dafa positif ak feebar bi nu mu dangereux nga xam ne day rey nit di faat ay bakkan ah ak ku ko am doo am jàmm pour man nit su positif da ngay gaar sa oto ñëw jël si ko yóbbu ko pour aaraale ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir gox bi ak ci biir kër yi mais ki nga bay ko muy na ci bi kër gi da nga ne dafa positif loolu nañ waxante deug loolu xel nangou ko xama xel da ko nangou parce que yow so nee ki dafa positif bay ko ci bi kër gi ñaar ñi positif ñep ñuy nekk di waxal ñep di génn ci mbéd bi di saafante ñi di dem julli ji di ñew dañ waxante deug da nga dafa positif loolu xel nangou ko parce que bu fekké né positif dëggantaan rek kon ki nañ waxante deug la la kon da ngay nan ki wal na ñep voilà man pour man sama bu xalat bu gatt bu fekké dafa positif dañ kay gaddu yobbu mais duñ ko bay ci kër gi boobu ba léegi non dawu ñu xamanta dawu ñu

ñun jaaxalatuñu moo tax ñun kenn dawatuñu ñun ñu ngi waxal ñu ngi leen waxal ba léegi ñii nekkal ñu ngi nekkal ñoom ba léegi du dëgg kenn dawatuñu ñooñu tey lañ ñu gën a mën a bëgg dugg ñu parce que léegi sénégalais dañoo yeewu ñaareel ba man moom nee naa leen xaw ma ne sama test génnagul waaye man su mu génnee man bañ na ma positif moom jàpp leen sénégal yëppay positif ndax fu ne laay dugg ku nekk laay waxal jàpp leen ne cinquante mille personnes dañu